bi ñu jugee ci waxtaan bu gudd gudd ñi nga xamante ni ñoo di waa TDS waa CNRA ministre de la communication ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk média yi fii ci Sénégal ñoo ñëwoon na ngir waxtaanee lu ñu war a fay loolu nag ñoom nee nañ mënuñu ko. dañoo ne bañuñu paiement bi d'accord nañu ci paiement bi ndax service la te gratuité amul fenn mais dañ leen ne. dañoo jógee ci ay événements successifs yoo xam ne euh, dafa générer une crise multiforme et multidimension affaire liñ dul nangu mooy ñu bëgg ñoo imposer des décisions de manière unilatérale diir que le premier avril paiement yi day commencer paiement yi mënul commencer le premier avril ci fànn bi féete ci waa des nee na ñoom mënuñu liggéey te fayee ko ñu depuis plus de un an ñu ngi leen di proposer la tarification bi nga xamante ni tarification boobu mu ni mënul demee neneen maanaam lu tax mënul demee neneen mooy li nga xam ne ñun moom la ñuy dépensé ci wàllu bande passante ci wàllu fibre optique euh, ci wàllu maintenance ci wàllu backup ndax lu am solo la loolu mënuta ñàkk daal maanaam lii ñàkk bu mënta ñàkk mooy ñetti millions yooyu mënta ñàkk. ndaxte mënuñu def leneen. ñetti millions yi mënta ñàkk ginnaaw ñetti millions yi mënta ñàkk mu nekk maanaam la grille tarifaire grille tarifaire boobu dañuy dem jébbal ko seen koy gisee day xool léegi donc CNRA bu ko validé ba pare ñun nag ñu commencé xaatim suñu contrat yi contrat yi bu ñu ko xaatimee ba pare jébbal ko nag ministère du tutelle moom ci boppam nga xam ne moo ñu lif moo ñu njaboote daal di oo nag ñi nga xamante ni aussi ñu éditeur nag ñu ñi nga xamante ni nag ñoo jiite média yi nee nañu dinañu fay fayum na gëndiku waxtaan bi teg nañu ko état Sénégal lu mu ciy wax rek la ñuy xaar fi mu ne nii ak TDS nee na moom ñaari at a ngi nii moom muy diffuser te laajul benn dërëm.